asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew mu ngi leen di ziar ñu ngi leen di nuyu di feeñal mbégte ci teewaay bi nga xamante ni tey daayiratul muxtafina ñoo sàkku woon ñaan ko ci sunu préfet sunu maire ñu nuyu ko ci bi ñuy jàll mu di monsieur El Hadj Makan Mbeng sunu préfet teewal fii itam borom réew mi ànd ko ak euh, meeru Tivaouane El Hadji Diagne Sy Mbengue ku ne xam na ni euh, ngantam moo te ñëwul waaye adjoint maas at mu jot ñoo koy séq di waxtaane ak chef de service yi ñu nuyu chef de service yi fi teew yëpp jaajëfal leen jaajëfal leen bi ñu tàmbalee ci suba sunu préfet jël na ko waxtaane aajo yi nga xamante ni bis bi ñuy waajal mu di bisu ndawi tariqa tijaan bisu ndawi senegaal ñu di ci daje daayiratul muxtafina di ko coordonné àndandoo ak mbokki taalibe yi mu ko siqal ci wàllu liggéey ñu koy def fii ci Tiwaawan at mu jot muy bésu daje ndawi tariqa tijaaniya bés boobu nag ku ne xam na ni tey dafa dugg ci yoonu xew-xew yi nga xamante ni mooy am ci tariqa bi ci fii ci ëttu maam Sidi Hadj Malick ci esplanade bi mu di l'esplanade des mosquées ay ndaw yu bari ci réew mi danañ jóge fu ne ci réew mi ba ci sax sous-région bi diggante Mauritanie Gambie Guinée ba sax Mali dana am ñu ñëw fekke si ko ak mbokk yoo xamante ni dana leen jaral ñu jóge ci bitim réew ci fu mel ni Europe Italie Espagne wala sax France ñëw fekke si rassemblement bi mu nekk rassemblement boo xam ne bu yaatu la may nanu tey nu waxtaan seet yi nga xamante ne ay aajo la ndax fu mbooloo di daje rek am na lu fay mën di xew te mu jaar yoon ak mu ñàkk jaar yoon li jaar yoon ñuy fexe nu mu saxoo waaye li ñàkk jaar yoon it ñuy fexe nu mu bañ a ñëwee ñuy ñaan yàlla nañu yàlla may ñu jël ci jàll ci ak ndam waaye jàll ci ak bépp dal dal ak bépp wér yàlla defal nu ko may nanu itam ñu seet service yi nga xamante ni ñoo daan àndandoo di accompagner dairatul muxtafin ñu waxtaan préfet euh, organisateurs yi wax leen aajo yi nga xamante ni moom la ndaw yi bëgg ñoom ñëpp it jël ci intérêt jël ci Pastef def ci seeni xalaat tëral ko ci tëralin bi gën a rafet bi gën a euh, euh, jaadu yàlla na leen ko yàlla fay yàlla def na waxtaanee nañ ko ba fas sunu préfet nu bëggoon rekk occasionné ci bii jataay feeñalal ko reconnaissance mbooloo mi surtout chef de service yi nga xamante ni ñoo ànd ak moom di ko jàppale le CDD waaye jaajëfalit presse bi nga xamante ni ñooy pressu su euh, réew mi te lu xew ci réew mi ñoo koy relayer di ko yóbbu pour que ku ne war cee jot xibaar di ay ëttu xibaar yoo xamante ni ñu ngi naw seen Pastef naw seen itte nawit seen xereñ ci jàllale gi ñuy jàllale xibaar ñaan yàlla na leen yàlla barkeelal seen yëngatu rawatina journaliste yi nga xamante ni toujours ñooy jàppale réewum Sénégal ngir euh, mu mën a nekk réew mu euh, fël ci yoon yi nga xamante ni ñooy tax développement mën a am ci am réew yàlla na leen yàlla jàppale ñoom ñëpp it ñu tenir occasionné wu ci bis bi euh, ñaanal préfet jaajëfal ko waaye bu ñu ko jaajëfalee ñaanal ko mu ngi jàll ci ki mu fi teewal mu di le président de la république bi nga xamante ni parenage yu bis yi toujours moom lañ koy jox ndax mooy sunu njiitu réew te yàlla dogalit njiitu réewu Maroc ku ne xam na ni sunu yaakaar nun ñépp ci wàllu diine tariqa mu nga féete ca Maroc sunu kilifa yi nekkal leen fii ñu jël ko jox ko muy sa majesté le roi Mohammed VI loolu kon dana jaadu bu nu teewee ñu ànd ak nun ci lii wannu ci seen pasteef wan nu ci itam ubbiku ak yaatu wan nu ci seen jàppale mu di jàppale borom réew mi nga xamante ni mësul deñ di accompagner ndawi Sénégal rawatina la dairatul muxtafin ci bis bi nga xamante ni bisu ñëpp la waaye bisu mag ñi la ñu dana jaadu ñu feeñal sunu cant jëmale ko ci ñoom dana am rek balaa ñuy tëj lu ñu ciy wax mooy bis bi ku ne xam na ni sunu kilifa Cheikh Abdoul Aziz ci weer wi ñu nekk di septembre le 22 ci at bi ñu génn ci la wujji woon boroomam ñu ngi yaakaar ni bu weer yu feeñee diggante tey bi ñuy dégg seenu bu njëkk yaakaar nañ ni danañ mën a gis weer wi bu feeñee te ñu xam ni feeñ na ci tey yaakaar nañ ni ashura dana nekk ñaar fukkeelu bés ci weeru septembre bi ñu ne su fekkee ni feeñul ëllëg la feeñ yaakaar nañ ni dana nekk ñaar fukkeelu bés ak benn bi nga xamante ni muy le 21 septembre mu tombe ak la veille bi nga xamante ni ci la génn àdduna moom sëñ Abdoul Aziz ci mois de septembre bi yàlla na ko yàlla dolli leer kon mu nekk occasion bu ñuy delluwaat ci ndigalal kilifa gi sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour ndigalal sëriñ Pape Malick bi nga xamante ni moom la ñu boolee loon mu ñëw teewe ko mu sëriñ Maodo Malick bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh ñu ngi yaakaar ni dana nekkaat une bon occasion pour ndaw ñi ñu renouveler renouveler seen allégeance seen pas-pas ak seen pastéef jëmale ko ci kilifa yi wan leen ñoom it seen taxawaay jëm ci lépp loo xamante ni seen joxañ la ñu jàppale leen ci yaakaar naa ni loolu tombe na ak ci bis bi ñuy ñaan yàlla nañu ci yàlla yóbboog jàmm waaye yàlla na yàlla dolliwaat dalal réew mi dolliwaat indiwaat ndox mii nga xamante ni moom lañu soxla te mu jëm ci dimbali baykat yi waaye naataange réew mi surtout yàlla na ko yàlla def ñu a yeggale nawet bi ak jàmm dana nu may occasion bu bis ba ñu delluwaat comme bisu ñaan la te occasion bi moo tax ñu di ko ñaan te jege ñit boroom xam-xam bokk na ci li ñu digle yaakaar nañ ni déglu sunuy kilifa ñu wax nu ban tànk la taxawee wax nu yan yoon la ñuy jaar wax nu it yan jëfandiku lañuy xaar ci nun ci li nga xamante ni moo dégmal ci réew mi ci ay xew-xew ay xew-xew yu jàmm xew-xew yu ndam yàlla na ko yàlla def ñu delluwaat santaat ñépp jaajëfal ñépp loolu laa amoon ci lu may wax wasalaamualeykum wa rahmatullah yoon yi ku ne xam na ni yooni nawet la yoonu nawet dafa bëri lu cay raxaloo yenn saay taw yenn saay ngelaw yenn saay dënu yenn saay euh, euh, melax yoonu tàngoor la parce que jamonoy tàngoor ci la ñu nekk oto yaa ngi daw di yëpp ay nit bu ñu sañoon ku jóge fa nga jóge fu ne lu mu sori sori boo ñëwee ba Tiwaawan delluwaat ci jàmm delluwaat ci sago ñu ñaan transporteurs yi chauffeur yi ñi ñuy yàpp ñu di ay njaboot oto yi ñu leen di jox ñu fexe ba oto yi ñu nekk ay oto yu tegu ci teguwaay te mooy li mu war a am yëpp mu am ko ci wàllu euh, melokaan waaye itam ñu ñaanit comportement yi ñu gën koo rekk teg ci teguwaay bi ko kilifa yi bëggee ba nga xamante ni tegu nànk ci yoon tegu nànk ci yoon dox nànk ci yoon yegg nànk beg seeg jàmm yàlla may nu ñu delluwaat ak jàmm ñu ñaan leen pèlerin yi ñëw di jóge fu ne ñu fexe ba euh, sàmm leen ba yegg si ci kartanu yàlla gannaaw ba ñu ko ñaanee ci kàttanu yàlla ak sunu barke kilifa yi nga xamante ni bis yii ñoom lañ ko séddee ñu ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm waaye ñu tenir comportement yoo xamante ni dana permettre lii nu bëgg kilifa yi bëgg ko mu mën a am te mooy ñëw Tiwaawan dal si ci jàmm delluwaat ci jàmm ak njaboot yàlla na ko yàlla def ñu bëgg rek loolu wax nañ ni puut puut fële lu bari di xate waaye xataa yi foog naa ni boo ko bëggee éviter da ngay fexe ba teel a jóg ndax teel a jóg ci yoon mooy tax nga teel a sóobu sa yoon teel a yegg fa nga bëgg bu ko defee teel a jóg gi nag ñu bàyyi ko xel di ko fàttaliwaale waa dayratul muxtafiina di leen fàttaliwaale itam waxtu yi ñu leen wax ñu ormal ko ak tenue yi nga xamante ni moom la ñu bëgg ndax waxoon nañ ni ku ciy ñëwit na nga bàyyi xel la tenue euh, blanche ni nga xamante noonu la ko daayira bi defee mu nekk aadaam yegg siwaale ak dal te tenue ba itam mën a nekk lu la lëpp lool ba kenn du gis say cër nga ñëw ci yoon ndax ëtt bi ngeen di ñëw ku fay ñëw war nga fa wane yar war nga fa wane melo wu rafet war nga fa wane taxawaay ak doxalin wu jaadu ñu ngi delluwaat di ñaan ñépp ñu bàyyi xel lool ñaan yàlla yàlla nañu ci yàlla yóbboog jàmm bàyyi xelit ñaan yi di dégluwaale ndax li nuy def ci bis bi kenn ku ne sa njariñ a ngi ca doon tele yaa ngi koy def pour sa pour euh, sa bopp waaye itam nga bàyyiwaale xel li mu laaj ndax tàllal sa loxo yàlla teg ca dafa am yoon ak melo ak taxawaay yu la ci mën a yeggale yàlla na nu yàlla yóbbu ci yegg ci ak jàmm jaajëfal monsieur le préfet di leen ñaanal yàlla na yàlla yëkkati seeni maqaama te mottali leen seeni mébét zahiran wa baatinan defal ko boroom réew mi def jàmm ci réew mi def jàmm ci njabooti réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi doon nekk ci daje bi nga xam ni dañ koy faral di amal at mu ne ngir waajal xew-xew bu mag bi nga xam ni daayira muxtafina bi asaril abay wal ajdaat te ki nga xam ni moo ko jiitee di sëriñ Moustapha si ibnu sëriñ Abdul Aziz si al amin ñuy ñaan suñu borom yokk leeram te taas ñu ci barkeem moom tey jii moom la ñu seqaloon liggéey bi mu ànd ci ak comité d'organisation maanaam muy waa daayira bi ak ñëpp ñi nga xam ni ñooy ànd ak ñoom ak mu ne ci xew-xew bi ñuy e, tàmbali di jox suñu nuyu ak suñu ziar sëñ Moustapha ngir mu jottali lu ko e, le xalif général des Tidianes sëñ Babacar Sy Mansour di wax ni waxtaan nañu lu tollook ñaari waxtu ngir xool naka la ñuy def ba fexe ba xew-xew bi na mu daan amee ci at mu ne mu amee nen ci anam yu nga xam ni yu mucc ayib la yu gën nañ ko daan defee ndaxte seetlu nañ ni at mu ne lim bi ñëw ci Tiwaawan ci événement boobu day gën a takku waaye tamit dinañu am ay jafe-jafe ci dem bi ak dikk bi ci yoon yi moo tax police ak di jël nañu ay matuwaay ngir yombalal ñëw bi ci biir Tiwaawan jën yi nga xam ni ñoo bokk ci daayira bi ak ñëpp ñi nga xam ni dañu bëgg ñëw fekke ci xew-xew bi fii ci Tivaouane et ñu sàkku ci gendarmerie mu yombale leen dem bi ak dikk bi waaye li ñu nemmeeku mooy béréb bu mel ni Pout digganteem ak Thiès foofu dem bi ak dikk bi dafay xaw a jafe ci jamono yi ñu toll sax gën naa jafe et ñu sàkku ci gendarmerie et ñu jël yeneen dogal pour yombalal nit ñi dem bi ak dikk bi et comité d'organisation bi tamit ñi ngi waxtaan pour xool ndax dinañu mën a ubbi yeneen yoon pour moytu def lu ñuy wax contournement pour mën a permettre oto yi nga xam ne ñooy ñëw ci événement bi te ñoom ñëpp dinañ am macaron ñu mën a fexe ba dugg ci biir Tivaouane te duñu am benn jafe-jafe ren nag xew-xew bi dañ koy def ci jamonoy nawet gis nañ ni mi ngi taw dëkk bi tamit am na ay place yu am ndox sapeur pompier yi ñu ngi ci et waaye dinañ jël matuwaay pour fexe ba nga xam ni ndox bi fii ñuy wax esplanade des mosquées ak yeneen yi nga xam ne mu ngi ci yoon yi ak lépp li nga xam ne mooy point bas ci dëkk bi ñu jéem a fexe nu ñu ŋàccee ndox mi. et ci wàllu woowu nag comité d'organisation bi ak daayira bi ñoom fas yéene dugal na ci ñoom it seen loxo mairie bi tamit dana jàppale comité d'organisation bi ba nga xam ni ñu am taxawaay boo nga xam ni ndox bi wax dëgg yàlla et su amee euh, mu bañ a yàgg ci yoon yi ak ci yenn béréb yi ci wàllu wér yaram am na ay point de prestation fixe hôpital bi am na fi district bi am na fi waaye dinañu taxawal benn poste médical avancé yóbbu fa infirmier def fa ay garab waaye aussi indi fa ambulance ba képp ku itteewoo paj ci diggante bi ñu mën la euh, faj walla ñu yóbbu la ci hôpital bi ci ni mu gën gaaw ci wàllu ndox mi et SDE tamit jël na ay dispositions dana fexe ba ñaari fan avant événement bi ndox ba ñu ñàkk ci Tivaouane waaye teewul dinañu wax eaux et ak hydraulique Thiès ñu indil ñu ñaari euh, camion citerne yoo xam ni dinañu mën a dimbale pour ñaanunu ko yàlla su ndox mi daggee ñu mën a ñëw wàllu nit ñi ci wàllu ndox et euh, li ci yeneen euh, fànn yi maanaam ci wàllu courant bi dinañ mettre Tivaouane hors délestage Senelec jël na ay matuwaay pour que courant bi bañ a dagg waaye dina def carburant ci groupe électrogène yi ngir ñu mën a fonctionner même su courant euh, su ñu amee problème ci wàllu courant et du yem ci loolu dinañ wàcce ñaari descente courant ci tente yi nga xam ni foofu la ñuy amal tamit euh, événement bi ren dañu ni dinañ ko gën a yokk moo tax éléments yi ñu daan soxla comité d'organisation bi dafa yokk dafa laaj ñu yokk ko bu daan nekk téeméer ñu def ko téeméer ak juróom fukk élément GMI ñu mën a jàppale ñëpp ñi nga xam ne ñooy comité d'organisation bi fexe ba salle yi nga xam ne fa lañ koy amee sécurité bi ñu yokk ko waaye ci fi nga xam ne mooy poste médical avancé bi tamit élément sécurité yooyu ñëw ñoom tam ñu jàpp ci waaye ci yeneen euh, axes yi tamit ñi ngi sàkku ci service état yi étatique yi ñu def ci yombal ak ndimbal ci wàllu demee ne ci wàllu douane ak lu demee ne ci wàllu gendarmerie ma nga xam ni dem beeg dikk bi dana mën a yomb ah ñu am yaakaar nag ni eh, engagement yi nga xam ni chef de service yi jël nañ te ñu fas yéene ci taxaw lëkkaloo ci ak comité d'organisation bi suñ ci taxawee eh, di ci sottente xalaat di ci liggéeyandoo ak mairie Tivaouane fii ba keroog eh, ñu ginnaaw ëllëgu tamxarit incha allah la xew-xew bi di am fii ba boobu yaakaar naa ni incha allah suñ borom dinañ ci defal ndimbal ba xew-xew bi. ren ji daal ñu am ci eh, ndam loo xam ni daaw ñu ko am ci at yi nga xam ni moo paase eh, loolu daal mooy li nga xam ne moom la ñu tënkoon eh, fas yéene ci taxaw ren ngir incha allah waa daayira muxtafina xew-xew bi nga xam ni vraiment ñu ngi koy amal fii ci Tivaouane daaw defe naa bu ñu ko defee jafe-jafe ñu ci amoon yëpp saytu nañ comité d'organisation bi wax nañu point yi nga xam ni fa la jafe-jafe yi nekkoon ren ji dañu fas yéene ci jafe-jafe yooyu ñu gën cee taxaw ba e, ni mu daan amee daal ren ñu am noo xam ni daal moo ko moo raw ba sëriñ bi incha allah li mu ci bëgg yëpp mu am ko ci loolu la ñu waxoon ni moom la ñu tënk ci daje bi di ci gërëm ñëpp billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim monsieur le préfet madame messieurs les chefs de service c'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui même à Tivaouane sous l'autorité spirituelle de Serigne Babacar Sy Mansour, khalife général des Tidjanes et de son porte-parole Serigne Papa Malick Sy et de toute la famille de Seydi Hadj Malick. Nous venons d'assister sous la direction de Monsieur El Hadj préfet du département de Tivaouane à la tenue d'un CDD pour préparer le rassemblement des jeunesses tijanes. Ce rassemblement annuellement organisé le lendemain de la Tamkharit, la journée de l'Ashura, sur l'esplanade des mosquées de Tivaouane, le maître d'œuvre, la Daïratul Muqtafina, occupe une place très importante dans l'agenda de la Hadra Malikiye de Tivaouane. En effet, en dehors du Gamou annuel, ce rassemblement constitue la plus grande rencontre des jeunes. Il nous permet de réfléchir sur les défis que doit relever la jeunesse musulmane, tidjane en particulier, Il nous permet aussi de renouveler notre allégeance à nos vénérés guides spirituels, de renouveler notre foi en cette tariqa qu'est la Tijania, mais surtout de nous ressourcer, de recueillir les conseils qui nous permettent, nous, en tant que jeunes, d'assumer notre statut de mouvement d'avant-garde pour perpétuer l'œuvre de nos vénérés patriarches. En effet, depuis 78, depuis 1978, année à laquelle Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine nous a donné le nom Daïratul Muqtafina bi Atharil Aba wal Ajdad, c'est-à-dire ceux qui perpétuent l'œuvre des vénérés patriarches, nous nous sommes assignés comme objectif principal de former la jeunesse musulmane, en particulier la jeunesse tijane, enfin, qu'elle soit apte à contribuer positivement au développement socio-économique du pays et d'ailleurs tout en se référant au programme de la Hadara de, Tijan, de, de Tiwawan composé de quatre aspects. Aspect culturel, aspect spirituel, aspect social et aspect économique, selon les enseignements de Seydil Hajj Maliksi. Mesdames, Messieurs, le CDD qui vient de, le CDD qui vient de se tenir dans d'excellentes conditions a permis à Monsieur El Hadj Makan Beng, préfet de Tivaouane, et les chefs de service ici présents de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la réussite de ce grand rassemblement des jeunesses tijanes. Ainsi, que ce soit en matière de sécurité, de santé, des secours des services de l'eau, de l'électricité. Il nous permet l'exécution des tâches assignées aux chefs de service et leurs équipes respectives. l'engagement et la disponibilité des chefs de service et de tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation de cet événement nous rend optimistes par rapport à la bonne exécution des tâches assignées avant le jour J. Je voudrais saisir cette occasion au nom de tous les membres de la Daïratul Mortefine pour remercier vivement les autorités administratives locales à travers le monsieur, à travers Monsieur le Préfet, nous tenons à remercier le Président de la République pour son accompagnement, son soutien qu'il ne cesse d'apporter à ce rassemblement, placé sous le double patronage de Monsieur le Président de la République et de Sa Majesté, le roi Mohamed V, Mohamed VI, roi du Maroc. Nous tenons à remercier aussi la presse nationale pour l'intérêt qu'elle porte à ce mouvement d'avant-garde pour perpétuer l'œuvre des vénérés patriarches. Je vous remercie de votre attention. programme de la journée est, vous savez que euh, la journée de l'Ashura, c'est une, c'est une journée qui demande aux jeunes, aux musulmans en général, d'approcher, de visiter des saints Euh, la journée telle que ça se faisait depuis, euh, depuis euh, du vivant de Serigne Abdoul Aziz Sy, c'était une journée, une partie spirituelle et une partie euh, destinée au discours pour permettre à ces jeunes qui viennent se recueillir à Tivaouane de prendre toutes les provisions nécessaires pour leur bonne marche. de leur vie. Donc, euh, une journée spirituelle, cela demande à ce que des prières soient euh, faites euh, depuis le début, à partir de 9 heures. Euh, l'allocution après se poursuivra. Euh, les prières, c'est habituellement des prières destinées à cette journée de la Ashura. Et en même temps, la journée coïncidant avec l'anniversaire de Seigneur Abdoulaziz Al-Amin eh, permettra à ces jeunes disciples de euh, faire des prières pour le repos de son âme, tel que le porte-parole et le calife nous l'a demandé. Donc ce sera une journée spirituelle. et une journée destinée à permettre aux autorités de lancer leur message pour que ces jeunes soient euh, réarmés par rapport à ce qu'ils ont euh, de plus pour cette communauté. La particularité, c'est toujours le même programme qu'on a maintenu de faire. Seulement cette année, nous avions voulu montrer tout ce que la Daïra est en train d'exécuter comme plan d'action. Nous avons voulu aussi, à travers ce programme, permettre à ces jeunes de venir écouter les conseils de nos, euh, de nos autorités spirituelles et en même temps renouveler notre pacte d'allégeance, comme il est demandé à tout disciple de le faire par moment, de se ressourcer, de, re, de faire un recueillement et de permettre aussi euh, à, à, nos, à, à nos frères de profiter de l'occasion pour leur réengagement par rapport à ce que ces autorités attendent d'eux. Donc c'est une occasion de recueillement et de renouvellement de nos engagements par rapport à nos maîtres. Tenu que cette fois-ci, que cela se fasse dans la prière et le recueillement. Permettre à ces jeunes de renouveler leur engagement et, et, et un programme qu'il faut vraiment euh, magnifier parce que d'abord nos autorités ont besoin de cela pour que leurs euh, disciples soient dans de bonnes conditions et euh, permettre en ces moments de trouble de réarmer ces jeunes pour que au retour dans leur euh, Euh, euh, point de vue qu'ils savent le comportement à tenir par rapport à toutes ces échéances qui profilent, qui profilent pour ce pays et ce peuple. Tenir la rencontre consacrée à la préparation euh, du rassemblement des jeunesses Tidiane à chaque année le Daïratul Muqtafina bi Asaril Abay Wal Ajdad. L'événement est prévu donc le lendemain de la Tamkharit. C'est un événement donc qui draine beaucoup de monde et nous avons constater que sa célébration donc prend de l'ampleur d'année en année. C'est pourquoi aujourd'hui, euh, en relation avec le comité d'organisation présidé par euh, Serigne Moustapha Sy Ibn Serigne Abdoul Aziz Al Amin, euh, nous avons donc essayé donc de voir avec l'ensemble des chefs de service comment faire pour réunir les conditions d'une bonne organisation donc de l'édition de la Ashura 2018. C'est ainsi donc qu'après avoir euh, passé en revue l'ensemble des secteurs, nous avons arrêté donc d'importantes mesures. Alors vont du secteur de l'approvisionnement en eau potable à la fourniture d'énergie électrique en passant par les secteurs donc de la santé, de la sécurité. De manière générale donc, nous avons dit que nous avons constaté que les problèmes les plus récurrents ont donc à fluidité donc de la circulation, le temps donc de la célébration de l'événement. C'est ici que nous avons prévu donc de renforcer le dispositif sécuritaire qui est traditionnellement donc mis en place par la police et la gendarmerie. C'est pourquoi nous prévoyons cette année donc euh, de faire venir 150 éléments du GMI, de mettre à la disposition du comité d'organisation sans barrière, mais de tout faire pour que les embouteillages qui sont notés au niveau donc de la localité de Pout puissent être donc euh, pris en charge par les éléments de la gendarmerie. Il est même prévu, n'est-ce pas, un contournement n'est-ce pas, de l'axe pour Thiès, en relation avec le comité d'organisation, nous verrons les modalités de, de la mise en œuvre de ce contournement. Dans le domaine de la santé, il est prévu l'implantation d'un poste médical avancé, le prépositionnement euh, d'ambulances, mais également la mobilisation des éléments de la Croix-Rouge qui vont travailler en étroite collaboration avec les éléments du district, mais également le euh, personnel de l'hôpital Abdul Azizi d'abord. Alors, dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans la fourniture donc en eau. Et pour cela, il est prévu le positionnement de deux camions citernes. La SDE prendra les dispositions pour que l'eau pour qu'il n'y ait aucune coupure durant les deux jours, donc euh, c'est-à-dire la veille et le jour de la célébration donc de la Ashura. La Sénélec mettra à la disposition donc du comité d'organisation du carburant. Elle prendra en charge donc le fonctionnement des groupes électrogènes. Elle procédera donc à euh, disons la mise hors de euh, de Tivaouane et de ses environs. En plus de cela, donc deux descentes euh, d'électricité donc seront opérées au niveau donc euh, des deux tentes qui sont prévues pour la célébration de l'événement. De manière générale, euh, nous avons pris d'importantes euh, mesures et nous pensons que d'ici à la célébration de l'événement, toutes ces mesures pourront être mises en œuvre pour permettre une bonne organisation de l'édition 2018 de la célébration donc de la Ashura, fête à l'occasion donc de laquelle le daïra Muqtafina bi Asaril Asaril Abaye Wal Ajdad donc réunit l'ensemble donc des jeunesses tidjanes du Sénégal pour venir au niveau de Tivaouane effectuer la ziar, n'est-ce pas, euh, mais surtout recueillir les conseils n'est-ce pas, et les orientations de leur guide religieux. Et c'est un moment fort donc, euh, de la vie de la communauté tidjane. D'ailleurs, l'événement maintenant est inscrit dans l'agenda donc, de, euh, des événements qui sont célébrés donc, par la Hadra Seydi Maliksi. Et nous avons donc demandé aux chefs de service, aux différents chefs de service, de tenir compte du contexte dans lequel Euh, l'événement est célébré cette année. Nous sommes donc en période d'hivernage, il pleut et les services de euh, les éléments donc des sapeurs-pompiers sont mobilisés pour faire des opérations de pompage. Mais également, la mairie de Tivaouane a pris les dispositions pour travailler en étroite collaboration avec le comité d'organisation pour veiller à l'enlèvement euh, des ordures, mais veiller également à la propriété donc de la ville de Tivaouane. Et à l'issue donc de la rencontre que nous venons donc de euh, terminer, d'organiser, nous avons donc bon espoir que l'édition de cette année, n'est-ce pas, connaîtra donc euh, euh des succès donc éclatants.